Senghane Senghor ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay bu baax. Euh, nga di juriste laaj bu njëkk buñ lay laaj tey Barthélémy Diaz euh, condamné nañ ko ci ñaari atu kaso euh, ci biir loolee juróom benn weer yi nga xam ne war na ko tëdd ban commentaire nga ñu mën a defal ci boobule décision. waa xanaa fàttali rek ne effectivement Barthélémy Diaz démb de doon dañ ko waroon a jox verdictam ci atte biñ ko doon attewaat ci affaire Ndiaga Diouf parce que atte woon nañ ko yoon bu njëkk ba ñu daanoon ko juróom benn weeri kaso bu mu war a tëdd ak ñaari at sursi juróom benn weer yi fekkoon na mu tëdd ko ba pare mooy biñ ko arrêté euh, à titre préventif avant ñu koy atte donc loolu du ko tëddaat maintenant comme moom kuy def politique la bu amee condamnation dafay am jeexital ci d'abord situation am tey mais situation ëllëgam mooy suite carrière politique am loo def ci am forcément ay conséquences yu muy produire fàttali tam ne affaire njaga Diouf boobu depuis deux mille onze la woon ci lañ ko ci toppoon mm-hmm. alors mu demoon première instance ñu àtte ko mu dellusiwaat en appel moom lañ doon àtte lañ ko doon jox verdict bi démb. d'accord tey euh, ñu ngi wax déjà mbirum radiation Barthélémy Diaz ca assemblée nationale bu dee condamné bu dee condamnation bi euh, lu antu la euh, en tant que juriste est-ce que lu war a mën a nekk la. waaw d'abord li li ñu war a njëkk a préciser mooy tey ay avocat loolu lañ njëkk wax démb bi ñu génnee ci tribunal bi mooy que menace la ci poste député bi mu yor parce que maire yi Dakar la fan yële installé nañ ko comme député alors buñ ko condamné définitivement mooy ñoom dañuy saisir cour suprême lañ wax mais il faut ñu xam ne tant que cour suprême vidéwul dossier bi ñoom munuñu <coughs> munuñ ko génnee comme député ça veut dafay continuer mandam en attendant que cour suprême vide dossier bi bu ko cour suprême vide maintenant te favorable ko dafay obligé ñu dindi ñu génnee ko assemblée mooy ñu raje ko te loolu constitution bi moo ko wax parce que constitution bi moo wax mu ne bépp député bu ñu condamné sur le plan pénal définitivement mooy recours yi nga waroon def yëpp nga def ko te amoo ci ndam dañ lay génnee assemblée président dafay jël décret ñu ràjjee la ci liste député yi mm-hmm. il faut aussi ñu préciser leneen mooy que cour suprême boobu ñu jëm du attewaat fee yi ay amoon naa kayiti fetal mais dañ ne sama kayit baaxul wala sama fetal amul kayit bal biñ demee vérifier ko li bal bi rey Njaga Juuf du ba ma tiire woon yooyu cour suprême du ko xoolati parce que cour suprême boo demee ci kanamam ay question de droit rek nga fa mën a soulever peut-être loi biñ ñu du moom la ñu waroon appliqué loi biñ ñu baaxul loi bi <coughs> dañ ko appliqué partiellement alors que tel yoo yu demee noonu moom nga fa mën a wax. Mm-hmm. d' accord est euh, ce que tey amul ay risque mu ñàkk itam maire bu ndakaaru euh, ndax euh, ñu bëri sax ñu ngi naan euh, Barthélemy Dias ba matul mun nañ ko def comme ni ñu def Khalifa Sall syndrome bi nga xam ne moo daloon xalifa Sall ba ñu révoqué révoqué ko jël teggi malaanu kiirlaayam nekkatul député jël itam mandaam ba ca maire bu ndakaaru ndax li ni mel mënul dal Barthélemy Dias pour mairie bi ci sama gis-gis risque yi pour mu perdre maire bi amul parce que lu tax amul mooy xam nga mbiram maire yi hmm. dafa am texte bu koy réglementé bu tudd ak troit de la décentralisation mooy liñ li nekkoon bu njëkk code des collectivités territoriales moom mooy réglementé maire nan lay duggee nu muy génnee et ainsi de suite euh, moom dafa préciser mu ne maire wala conseiller bu ñu condamné ndax crime hmm. dañ lay raje mais moom toppee wuñ ko woon crime en réalité hmm. parce que liñ ko doon toppee déli lañ ko tuddee et comme texte bi tuddul déli kon defe naa ne waruñ koo mën a génnee foofu en tant que maire léegi nag le recours mooy recours bi ñu def cour suprême c'est suspensif dafay aj yëpp en attendant cour suprême dogal ñu door a mën a xam ban boor la ñuy jël ak lan la ñuy def. d'accord d'ailleurs moom xam na ko parce que dégg naa mu koy wax dégg naa muy table ci ne quinze mois yi des ñu yegg deux mille vingt quatre cour suprême mënu cee vider dossier bi. Hmm. d'accord kon euh, bu ñu la déggee baax kon jamono ji teel na ñu xam ndax Barthélémy Diaz day perte mandaam député wala mairie bi. waaw fi mu ne moom teel na pour ñu wax ci def koy perdre wala du ko perd parce que dafa nekk ba léegi ci biir procédure mhm. mooy am na yoon moo ko may mu dem première instance ñu daan ko mu ne d'accorduma mu saisir cour d'appel juge bi féetee ñu kaw bu demee foofu ñu daan ko yoon may na ko mu dem cour suprême mooy ba na a kowee pour ne encore ah man d'accorduma ci lii ak lii ak lii ñooñ nag buñ attee atte bi foofu lay yem dafay jeex loolu moo tax ñooñ bu ñu àttee nag bu boobaa ci la ñuy mën a wax en fonction de ñoom décision bi ñu rendre est-ce que moom dafay génn wala du génn. d'accord parce que euh, attention. Mhm. mënoon nañ ko ne sax te euh, président bañ a jël décret bi bañ ko signer <laughs> te bu boobaa aussi <coughs> dafay toog en attendant ñu signer décret bi. Mhm. d' accord cinquante euh, tey euh, affaire baax Barthélémy Dias bi nga xam ne atum 2011 la woon ba nëga ni ñu koy toppee ni euh, moo rey Ndiaga Diouf bu ñuy xamee ni sax Ndiaga Diouf ab nervi la woon ñëwoon di leen attaqué est ce que mënuñu jàpp ni mbirum politique la bu dee déjà 2011 daanoon nañ ko a ñaari atu kaso mu tëddoon juróom benn weer xam nga Euh, wax ne mbirum politique la dama xamul un peu ñi koy wax d'ailleurs fan lañ ko wéer mhm. ku nekk nag ak libre nga pour def sa appréciation mais man li ma xam mooy <coughs> ku xam un peu <coughs> procédure yi ni muy doxee fii nga xam ne 2011 ak léegi nga dem fi première instance ñëw fi appel ba war a dem cour suprême yàgg na yàggul parce que am na fi dossier yoo xam ne jël nañ temps bu toll noonu wala léeg-léeg sax lu ko ëpp pour ñu def parcours boobu parce que ku nekk xam na ne suñ tribunaux yi dossiers yi dafa bari magistrats yi greffiers yi le personnel judiciaire defa manqué donc dossier yuy tiré en longueur la surtout bu fekkee nit ki nekkatul kaso donc que temps bi mu jël ak ni mu doxee sensiblement man jàpp naa ne xel mën na koo nangu donc gisuma maintenant pourquoi ñu mën wax politique la parce que il faut ñu considérer ne benn nit faatu na ci loolu kenn mënu koo weddi mhm. il faut ñu considere ne aussi <coughs> ay tiir am na fa kenn mënu koo weddi mhm. et que su ci nguuri président Ablaye Wade la xew entre temps président Macky Sall ñëw na fi au pouvoir mhm. dossier bi di dox di continuer di continuer je rappelle que même moom à un moment Hm? moog président Macky Sall ànd nañ ci politique mais maintenant tàggoo nañ ci politique parce que man dama jàpp tant que awma preuve am man du ma assimiler li magistrat yi di def àllu politique parce que man xam naa ne ñoom dañuy liggéey ci dossier boo xam ne enquête la jógee depuis police wala gendarmerie ba yegg si ci ñoom hm. dossier boobu la ñuy téye te ñoom décision yi ñuy jël dañ koy motiver dañuy wax fan lañ sukkandiku pour wax lii ak lii ak lii wala jël bii décision ci ci dossier bi mhm. moom am na ay avocat ñeneen ñi am avocat yeneen juriste yi nekk ci biti dañuy lire di apprécier ñoom xam nañ lool comme xam nañ ko nag dañuy def attention pour moytu ñu jël décision suba ñu kase ko mbaa ñu ŋàññ leen mhm. kon moo tax man munuma jàpp ne tant tegaluñ ma baaraam ne ma lii moo tax muy firnde bu leer munuma wax ne politique la mhm. d' accord euh, ñu jàll rek ci laaj bu euh, mujj bi euh, Senghane tey gis nañ Ismaïla major Fall dellu si yore ñu dénk ko ministère de la justice ban jàngat nga ci am. waa Ismaïla Madior Fall delseem ci ministère de la justice man dama koy rafetlu parce que man dama bokk ci ñi jàpp ne Ismaïla bi mu njëkkee jaar ministère de la justice nekkoon na ministre bu baax nekk na ministre bu baax parce que. man dama xam un peu bi mu ñëwee nan la organiser woon yi cabinet am yëf yi à l'interne mais man dama gis text yu bari yu mu liggéey ci biir ba ci texte yi ñuy tuddee circulaire nga xam ne moom mooy organiser souvent fonctionnement interne administration bi nan lay doxee ak yeneen ak yeneen yu ma xam yoo xam ne amoon na ci moom recul ak neutralité bi war ci ministre kon man xam naa ne mën naa wax ne te kenn du wax ne moom amul compétence yi bi mu fa jógee gis nañ ministère bi niñ ko gérer ak ni mu doxe hmm. parce que ñun aussi dañuy liggéey ak ñoom dañ leen jege xam nañ lu bari ci li fay xew donc man jàpp naa ne retour am baax na parce que am na lu mën a stabiliser ak mu joyanti ko foofu. cinquante mhm. euh, yi ñu bëri ñu ngi ne euh, Ismaïla Madior Fall euh, tailleur de la constitution la dañ ko fee tegaat ngir mu préparer le terrain bi président Macky Sall 2024 am am troisième mandat régler itam ka Ousmane Sonko. xam nga c'est vrai dégg naa yooyu dégg naa sobriquet yooyu ñu koy tuddee. Euh, parce que en général détracteur am yi ñi mu jàkkaarloo ci wàlli politique ñoom ñoo koy gën di di ooyee ay tailleurs de la constitution et autres man li ma jàpp te mën koo wax mooy Ismaïla constitutionnaliste la mooy constitution moom la jàng xereñ ci ba bu ma yeboo ma mën la ne nekk na ci sëriñ te suñ meilleur constitutionnaliste dëkk bii moom ci la bokk sañu ma laa wax nag ne moo ciy meilleur bi mais xam naa ne ci meilleur yi la bokk loolu ma lay wax moom kenn du ko dindi. Hmm. parce que <laughs> man suivre naa ay kuram université deuxièmement dama jàng lu bari moom ci lum bind même avant sax muy nekk ministre ma xam nan la liggéeyee kon liggéeyam nañ ko ko reconnaître te fépp fu fu fu naataangoom yi toog muy fii di Afrique di feneen bu ñëwee toog kenn amul baat boo koy jam mbaa nga mën koo scientifiquement wax ne lii manqué na la wala manqué wu la mhm. léegi nag moom dafa dugg en politique comme dafa dugg nag ci politique ah du ñàkk muy jot genre yi pikk yooyu mais li ma jàpp aussi mooy troisième mandat candidature yi président boobu Ismaïla munut koo régler mhm. munut koo préparer d'ailleurs xaw ma nan la koy préparer peut-être temps bi mayewu ko bu ko maye woon ñu dugg ci texte yi mais buñ ci duggoon naaw la woon ne dana jafe lool pour moom pour mu mën koo préparer et puis Ismaïla dafa joxe kàddoom ci mbir mi. Mhm. da cee wax waxati ci ñëpp dégg ko man jàppuma ne mën na cee dellu gannaaw. te bu ci delloo gannaaw nag da ngeen dégg suñ appréciation danañ leen wax lan lañ xalaat ci moom. Mhm. bu dee mbiram Ousmane Sonko Ousmane Sonko magistrat ordre judiciaire yi ñoom ñoo yor dossier. Mhm. te ñu bari nag dañuy wax waaw dossier bi dafa. dafa yàgg dafa nangam dossier bi yàggul parce que dossier yu mel noonu ñu ngi fi gën koo yàgg fuuf te kenn tuddu leen kenn fuusu leen loolu mooy aspect bu njëkk bi mm-hmm. deuxième aspect bi mooy mais loolu Ismaïla mënu ci dara parce que Ismaïla en tant que ministre de la justice mën na jox ay instruction procureur parce que noonu la suñuy texte tëddee mm-hmm. par contre li Ismaïla mënul mooy normalement mënta jox benn juge d'instruction wala juge du siège boo xam ne dafay àtte mënul laa jox instruction parce que ñoom xam nañ li leen texte yi may ñu war koo mën a topp maa ngi xaar nag ba gis firnde ne am na ku ko ci toppul bu boobaa aussi danañ apprécier mbaa ma am firnde am na kum ci jox instruction ne defal lii mu def ko bu boobaa dinaa la ci wax la ma xalaat parce que loolu warul mën a nekk Senghor Senghor Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm maa leen di remercier madame fàttali juriste nga